dinañu gis bëri dinañu gis tamit xex gis nga ku xam Modou Lo mm-hmm. Modou Lo sama jikko la yor moy mm. que ni bu ñu nekkee si loo xamante ni ku ci jëlé defet gatch nga ci am daf leen di jaral seen bakkan mën nañu nak masla ak yaw si lepp mais mm. bu ñu duggee sa mbañ gatcha ga dañuy wone suñu bop Modou Lo du may Siteu dara mm-hmm. li man ma lañ ko wax fi luñu masla masla ak respect bu mu ko mëna jox bu ñu si Modou Lo du ko may dara ndax moo duloo lu mu gën a bañ ci àddinaam mooy defet mais Siteu tamit dafa war a sant yàlla bu baax ndax tey mu nekk jeune prouvé mhm. jóge sax yaakaar naa ci defet contre Lac de Guiers Modou Lo en tant que roi des arènes tàllal ko loxo may ko sens bëgg na ko jàppale si xaalis bëgg na ko jàppale tamit ci couronne bi kon lu mu war a mën a gën a def mooy gën a góor góorgóorlu wane ni tey jii làmb ji moo doon ni mu def ba jël roi des arènes bi dinaa ko def ba jël roi des arènes waaye ku jàpp ne tey làmb ji dañ koy naxante wala dañ koy maslaante ndax ay mbiru mbokk ak affaire yooyu mm. ñu ngi foye suñu xel làmb juy neex lay doon bu am safara lay doon te ku ne mën naa daan moroomam tamit mm-hmm. Siteu mën naa daan Modou Lo Modou Lo mën naa daan Siteu mm-hmm. mais man Modou tamit mooy sama favori mais Modou Lo du maye dara mhm. Modou Lo bokk ci ah? Modou Lo ci dama dégg ay luñu bokk rek exactement parce que euh, ñu dara mais seen frère et sœur yi ñoy sey ah d'accord d'accord lool mbokk la dama dégg ñoy isbi quoi mais nak na ben affaire hmm. mo Lo xam mo mo mo sama mbeur hmm. mo rek man mo ray top ñu nak sita lu wax ci gëna bëri door yi gëna mu gëna metti ci yow xam nga contre boy ñaaw mhm. ma ngi won signature contrat ba mhm. sam président fan si dama ni que Abdou mu ni man naa ma ni ko Modou mi day duma Boy Niang daan ko mun ma mbay Boy Niang indi na état de physique de ma ni ko poids poids bi mu indi nii si la ko Modou Lo di daane ah, ndax Boy Niang mi ngi wax rek Modou Lo ngi toog mu toog di yun na rek sëgg si téléphone am mm-hmm. ni pat ndax man Modou man du sama mbër mm-hmm. mais bokk na si mbër yi ma gën a naw si réew mi wallaahi lazim ah. bi ma bëree ba pare. moom mii. wax dëgg yàlla woo na ma. jour boobu ni ma ñaanal ma si combat vidéo yaa ngi ni si tamit ma ñaanal ka ni ko yal na la yàlla may ndam si barki sëñ Babacar mi ñu bokk. Ah mu conseil ma samay mag ngi taxaw mu ni leen kii jàppale leen ko bëree bu rëy la bëree ndax bëree bii muy bëri nekkul xale moo koy bëri. Mhm. ndax ndaanaan la te xam na luy ndaanaan Modou Lo man bu bëree sama mu daan ak mu daanu sama xol day sedd si moom. man du sama mbër. mais mbër kaamil la dafa am ful la am responsable. si lu muy def mm-hmm. sportif uh-huh. vare la. Mm-hmm. door làmb nag mën nga nekk si yeneen lu la neex nit waxal mais biir bi li nga xam ne man mooy sama essor foowu ma si réewu ma si. jàppuma si nit bàyyiwuma ci nit ndax sama décision bopp lay jël mm-hmm. du ma ci sax déglu kos du ma déglu kenn su ma ñëwee damay ñëw appliquer la ma xam ak sama euh, sérieux lu ma si yàlla may ma jël te Modou dafa sérieux mm. alors Siteu lan moo koy may sens ci combat bi. Siteu lu koy may sens ci combat bi mooy tamit mu taxaw bañ fa nekk di xeex ak Modou mm. parce que jàppanteeg moom jàppanteeg moom ba mu dëgër ba mu wóor ni jàpp na Modou mu fexe ko njoolu Modou Lo fexe ko jéem a mbot mu suruxal ko mais bu fekkee naan day jéem a góoru di xeexu Modou Lo fu mu jaar ak ay moroomam rek la koy jaar ndax Modou. dafa yor bëri bu bon yor xeex bu bon moom dala naan yunna ci yunnam googu ñaari korose góosam dal na la fi ngay màmmee di ñëw hypercule droit am dal la te fu la dalee nga pare si làmb bala nee na bala nee na mbër moom ku bëgg daal dafa hmm. nga nangoo jël coup faras bii moom bu la ko dóoree moom enchaîné ñaari coup yi da ngay ñëw parce que Modou combattant la c'est-à-dire que gaa gaa yi xamul nga foot nga sport mhm. dafa am lu ñu naan poids et la masse dafa dafa mhm. poids ak masse ngir mën nga rëy <laughs> fekk amoo doole xam nga mhm. gis nga xool nga xool a xool bu mu ko xool ah. nga xam ni kii nii sérieux na te dafa saay-saay. Mhm. dafa yor jikko bukki. d'ailleurs mbër bu mu tasee loolu lay wax après combat Modou Lo voilà jikko yi kii la yor donc voilà ku mu tasee rek. am na mille sens pour mën la mën mën na daan ku ne. waaw mhm, mhm. ba si sama waa ji sax Modou mën na koo daan. kuy sa waa ji Balla. mais yomb na ñu <laughs> daa mel ni kooku mooy suñu kii bi. mooy natt waaw mooy parce que daan na ko deux fois aussi. ba si entraînement je pense que ni est ce que dinañ bëriwaat ñoom ñaar je ne pense pas que ni. mën nañu bëriwaat tey boo seetloo tey man dama la yow du ma fen te lii xam naa ni kenn bàyyiwu ko xel si làmb Balla Gaye 2 lu ko gën a delloose si làmb tey ba mu gën a bëggaat nii làmb. Modou Lo bokk na ci. nu mu ci bokkee mooy daan gi mu daan Ama Balde daan gi mu daan Boy Niang ni mu teglee jeunes yi booy yi daan leen. mais moom loolu waru ko ci fekk parce ma la moo tax moom daan na Balla dafa ni woon day jëlaat roi des arènes. Mm-hmm. te quel roi des arènes mi ngi si Modou rek. dinañu bëriwaat. waaw ah, mais question question làmb ji am na ma ko yow Mbaye waaw.

jël roi des arènes mais yéen vous n'avez pas par exemple euh, euh, prérogative naa ne empereur rek ay non loolu tamit dañ dañ ko mutee mooy comme li ma wax loolu sànqare xam nga sànq wax naa ko tey si biir yi wax mm-hmm. mooy que ni lépp défaut CNG la ak ministre sport mm-hmm. te ñu war si jël mesure yu mat sëkk. dëgg mooy que ni ñun ay catégorie am nañ ko ñu jeex. ñunu gën a suufee am nañu ay catégorie ñi si topp am nañu ay catégorie ñii am nañu ay. catégorie mu amay mu am pyramide quoi. voilà léegi ah. tey mbay suñu catégorie fii mu toll tey. man war nañu tëgg. comme kalaaf boo xamante ni si tey woor nañu xool ni ñii nii ñoo gën a néew defet xool canaux yi nga xam ne ñoo gën a néew defet te ñu ngi daan. Mm-hmm. ñu fexe leen a tëggal kalaaf ñun ki si génn si kalaaf boobu wala ñaar ñi si génn. ñu mhm. fexe leen a yéegal si ñaar ñi nga xam ne ñoo supérieur ñooñu. Mhm. bu ko defee nag kii rampe ba nga xamante ni si tey àgg nga sa loo boobu sa loo bu mag ba comme Balla Gaye Gris Bordeaux Modou Lo ñoom mbër yu mag yi. Mhm. xëy na nag du mën a ne ndax financé lay laaj te yaakaar naa ni état bi war na si mën a dugal loxoom. nga tëggal leen kalaaf boo xamante ni da ngay jël ay centaine de millions comme li ñuy fayeeku combat bu si ne nga tegal leen ko jël waa jël waa jël jël jël couronne roi des arènes wala seize roi des arènes teg ko boo ko tegee ñoom ñooñu ñoom ponkal yooyu VIP yooyu ku si jël roi des arènes mhm. dem sa seize am toog léegi nag ñooñu nga xam ni ñoom si VIP yi la ñu jëlu ñu roi des arènes ñun ñi nga xam ne ñu ngiy màgg di yéeg ñi ñooñu talal ñu loxo bu ñu demee ñun ñooñu ku si génn ñu boole waan ñoom ñooñu tëggaat tournoi si ku si génnaat ñu boole laag roi ba. Mm-hmm. boo bëree yaag roi ba ku daan doon roi. Mm-hmm. loolu lu ñu war a lu ñu war a moderniser la defaraat. te ah. yaakaar naa ministère bi war na si jël. mesure alors Mbaye euh, su su classe boobu amulee comme ni nga koy waxee nii euh, tey boo doon bëri kan nga yaakaar ne mooy nekk voilà mbër boo xam ne mën nga titiyee ak moom. mën naa bëri ak moom bëri ak moom. xam nga tey euh, Talfa am na komba Pokola Balde am na combat mais tey jii nii ku si mel na euh, ay jokkel ñoom si ay defet la ñu jóge war nañ ma mën a may sax ñoo ma mag sax si làmb mais war nañ ma may sax ndax ñoom ñi ngi daanu man dama bëgg yéeg maa ngi daan. pourquoi pas jël ki nga xam ne moo di. non coince tamit boo ko proposé man sax boo ko proposé du ma nangu jël parce que dañ naan ci kaw la ñuy xool mooy kem li mooy wax rek. Mhm. tey fuñ ñu boolee war nañu mën a bëre ndax man làmb ji ki siy takk ngeen mën naa la daan. mais Tafa Gueye deux aussi mu ngi def ravas ci jeunes ci mën nañu wax booy Tarbaxa. waaw Tafa Tafa Gueye. waaw mooy Tarbaxa. waaw voilà mm. moom aussi est-ce que mm, sa ak moom warul mën a neex xam nga dafa am benn moment mu nekk ci saako yi. Mhm. billahi ku dee sa bàmmeel mu def live TikTok. Mhm. ma dugg participer ma ne ko grand mu ne ma ma ne ko dama bëgg nga may ma sens ma bëre ak yow dama bëgg bëree ak yow. Mhm. mu ma yow sama doom nga dama bëgg a bokk ci say staff mais dëgg la man sama rak sama doomu baay boo xam ne benn gaño ñoo ko bokk Souleymane Diaw moo ñu boole jur. sama ñetteelu pap moo ko jur man may sama yaay aaw mooy aaw ma jur. tase nañu kalaaf. Euh, mbappat mhm. ñu bëree ma daan ko kon ku bàyyiwul tey sa famille kenn. Mhm. war nga mën a bëree koo xam ni. làmb ji mu ngi koy bëgg yàq. mu ngi koy bëgg a yàq waa Géejawaay Pikine loolu mu ngi koy bëgg yàq te lii sport la. Mhm. te ñun suñu secteur bee am nañu plus de ay seize koñ wala cinq koñ yoo xamante ni si tey ñooñu rek war nañ la mën a doy. nga dem beneen koñ noonu tey làmb koñ bu si nekk. mbër mu fa nekk sa waa koñ ñoo la war a mën a dooleel. ñun ñu bëree suñu biir. mais cent pour cent yi moo bokk si lu yàq làmb ah. mhm. bokk na dëgg la nag lu rafet la mhm. kenn rafet ndax couleur la ñuy défendre mais lii nekkul football football mhm. buñ koy def individual. football individuel la nawetaan nawetaan ngi ni koñ par koñ gis ne sa koñ ngay gérer mm. kon li bu ñu demee ba ni nu couleuru géejawaay loolu GFC la mm. ñun ñëpp war nañu mën a taxaw défendre GFC mm-hmm. géejawaay gépp mm. mais comme nawetaan man sanc ba laa dëkk man ah. couleuru sanc bi laay défendre ba mu final kon tay ñun mbëru sanc bi war nañu bëre mën a bëre mbiru mbëru sita jonxob wala mbëru jàppoo saam ah. dëgg mm-hmm. làmb jii nii dafay yàqu dafa laaj defaraat bu mat sëkk. defaraat bi mooy laaj mooy lépp ñu tekk si yoon xam xaalis bi nga xam ni mbër yi ñu ngi koy dagg chaque saison. fan la jëm fan la jëm. xaalis boobu ñu fexe si mbër yi am ay carte yoo xamante ni si tey ku si feebar. war nañ ci mën a jël dara mm. mutuel faj la ku si bàyyi dem âge de retraite mais mbër tey jii comme sama kalaas gii tey yàlla tere ba ma ndog daloon tey samay mbokk bu ñu ma jëlul en charge damay futi man mhm. nag loolu nag moo tax ne yéen mbër tamit man mu di bëre di fekk ay millions da ngay préparer sa avenir c'est-à-dire que sport làmb nag sport individuel la boo xoolee nga écrit yow nga nekk écrit par exemple sa écrit hmm. tudd

maanaam ñu bëri ñu koy wax mais mos naa dégg euh, je crois Aliou Sarr. Hmm. Hmm. mu ne moom il rend compte directement au ministre des sports xam nga CNG délégation de pouvoir la wax. délégation de hmm. pouvoir mooy dama jël sama sañ-sañ. jox la yow nga téel ma. kon su ma soo ma téelee man nga man ngay rendre compte. xam nga ne yow li ñu jot vingt ans. trente ans. chaque jour ñu bàyyi la nga nekk foofu. xam nga ne ko si sama xalaat nekk lu ko ne am na koo xam ne mu ngi koy rendre compte. si am ngeen droit nag xaalis bu nga rendre compte ministre farafa lañ koy dugal. donc vous avez le droit. xam naa nit moom maanaam du yor ay. bien public hmm. manam yo àll askan wi téye ko rek def lo neex non je crois que affaire bi am na fu muy fu mu am procédure boo muy jaar ba ñu versé waaw maanaam yéen làmb la ma def nag vous devez vous organiser yéen mais ñom amnañ collectif non bo xamné gribo do mo ko jité Gris Bordeaux loolu doonu mos naa am seekaca euh, ah. man mbeur mu ndaw kese maa si participer won hmm. moy que man lima lay wax rek moy que man